di am mbégte ci teewaat fii yëkkati ay kàddu ginnaaw situation bi nga xam ne am na fi situation bi fi am démb te réew mi ku ci nekk metitlu ko ku ci nekk yëkkati sa kàddu ku ci nekk am ci noo doxale ku ci nekk am ci noo taxawe ngeen may ma ma remercier ñëpp ñi nga xam ne fekk si nañuñu ci taxawaay bi nga xam ne démb am nañu ko parce que nag dafa am lu ñu mus di xeex mu di jaay doole ci réew mi demoon na sax ba ñu bari jàpp ne suñu mbokk yi toog suñu ay noon lañu woon ñu ne déedéet man Bougane benn objectif dong laa am je reste un passionné du Sénégal je reste un démocrate te lépp luy nasaxal démocratie dina jóg jaayante ko may commencer d'abord ci njaboot yi nga xam ne mooy këru diine yi tàmbale ko ci xalif généraux yi fu ci nekk ndaw jóge na fa ñëw Ndakaar ba ci tey ci suba am na ay ndawi xalif yoo xam ne dem xooli lenn ci fi nekk pour wax ak ñoom ma dégg ci kàddu mu ne yenn saay nga dank dank boo xam ne boo ko sexee dana dana tàng ci say lex te boo ko yàbbee mu doon gàcce ci yow kon maa ngi sant kilifa diine yooyu yëpp santit kilifa aada yi waaye ñi ma bokkal langue mu di la classe politique ñoom ñëpp à l'unanimité en tout cas toute l'opposition nekk nañu benn say boo gisee tey suma jeune frère teew fi mu di Pape Djibril parce que dafa teewal coalition bi nga xam ne moom moo di sàmm sa kàddu ngeen ràññee ko muy un bloc générationnel ay nit ñu bokk jamono am benn yitte dong mooy nu ñu def ba soppi réew mi defar ko teg ko ci raay yi ñu bëgg waaye ci biir bloc politique boobu dañu ànd ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci la grande intercoalition parce que nag cette grande intercoalition ñu bari dañu fa nekk mu di ay parti politique ñu bokk yéene bokk xalaat lenn dong tax ñoo jóg mooy naka lañu mën a def ba empêcher cuune yi ba empêcher juutimaan yi ba empêcher ñi nga xam ne daanaka dañoo tële ñu bañ leen a jox assemblée nationale parce que parce que nag koo jox réew mu bëgg laa soppi def la surga ci sa biir kër boo ko ca dollilee assemblée nationale boo moyut boo bëggee lekk da ngay xaar ba kilifa gi noppi nga doog riigu te loolu jàpp leen ne moom la ñu doon xeex tey jii loolu ñu doon xeex yet woowee la jël ñoom bëgg ko jëmale ci suñu kaw moo tax des démocrates des républicains taxaw ne loolu du fi amee mobilisation bi am démb ci wàllu société civile parce que ñoom ñëpp réagir nañ association de défense des droits de l'homme ñoom ñëpp taxaw nañu ci mouvement activiste yi ñoom ñëpp jóg nañu taxaw ba ci bi ci mujj tey am na ci ndaje moo xam ne bu mag la bu leen regroupé et kàddu yi ñu fii yëkkati it ku nekk bàyyi na ci xel kon ngeen xam ne am nañu taxawaay boo xam ne li ñu am yéene mooy defar réew mi li ñu am yéene mooy defar Sénégal li ñu am yéene mooy bokk ci ñi nga xam ne dana nu jóg ba ñii li ñu bëgg a def ñu empêché leen ko kon maa ngi leen di wax rek ne incha allah moom Ousmane Sonko na xam ne fii ragal amu fi moom Ousmane Sonko je le regarde dans les yeux wax naa leen ne leen ñett xamul mais ñaar xam wax naa leen wax naa leen ne leen moom Ousmane Sonko moom xam na ne Bougane du ragal bi ñu ko woowee moom ne ko wuy jil justice nanguwul Ousmane ko musul nangu wuy ji justice Sénégal man rakam la bi ma justice bi ñu ma joxee convocation waxuma kenn ne ñëwal gungem waaye ba ma demee ca police dama fekk nit ñi taxaw di xaar démb bi ñu ma placé en garde à vue may dem di ñibbi may dem ci police ba parce que ñibbiwuma bàyyiwuñu ma fa ñu ma yóbbu doon ma fa denc ba may génn ca cybercriminalité cybersécurité jeunes yi ma jàkkaar lool ci suma kanam mbooloo mu takku bàyyi seen yitte taxaw di ma xaar mu wóor leen ne mu wóor leen ne amuñu ci dara lu dul ma tàllal leen loxo walla ñu gis ma ay policier seq ma ñu jëm di ma yóbbu ci biir kaso tëj ma rab ma tëdd ci dër bi mais Sénégal jar na ko dama dama bëgg rek dama bëgg rek ñoom ñu xam ne mënoon naa fexe négocier am fu nooy fu tëdd comme ñoom ni ñu négocier woon ñu jox leen suite foofu non non non s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît mënoon naa négocier ñu jox ma fu nooy fu ma tëdd parce que ñoom moom Ousmane Sonko bañ ko jàppee ci kaso bi yóbbu ko Sébikotane dafa simuler feebar dafa simuler feebar ñu yóbbu ko hôpital principal ba mu fa jógee dafa lijjanti ñu jox ko suite trois cent mètres carrés am split ak lépp muy lijjanti boppam di négocier ak président Macky Sall c'est la réalité dama koy fàttali rek.